def ça va. maa ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah ni nga def. tey jàngale woo daara ja. tey nax jàngale woo. alhamdulilah alhamdulilah lu nga def. maa ngi sant bu baax kay alhamdulilah kay. alhamdulilah wax dëgg yàlla kontaan naa si yow. Mhm, macha allah kontaan naa si yow trop. macha allah ndax depuis j'ai parti là-bas à France. Mhm. Euh, depuis lors tu es euh, derrière moi. Mhm. franchement yaa ngi jàppale sama doom jàppale sama kër. gis naa ko oui j'ai vu ça j'ai vu ça. franchement j'ai vu ça après. e eh, joni eh, gummimi tan eh. ah, acca mhm. sama doom bi ñëw ne ma papa man ko weyi mujuma il faut repo le marabout ma ne kan mu ne ma ngay nuyu sëriñ bi sëriñ bi day soxla mhm. ma ne teet sëriñ bi kay wax ko ne toog la c'est moi qui viens ici mhm. de Mm, oui c' est ça ça va. ça va nga maa ko lool. Mm-hmm. maa ko sa papa bu jógee. nga ni ko mu fekk si ma si daara ji. Ah, waaw maa la soxla woon. Ah, waaw maa la woolu woon. waaw parce que kaaw. Mm. may kalaa na ma yow lu musul am. Mm. may def na ko. waaw woon na ma kalaa na yow. Mm-hmm. waaw ni ma bi yëpp nga takkee sa troisième soxna soosu ba léegi. Mm-hmm. yamaleetu waaw da def différence. mais def différence ngay def différence waaw maanaam li nga doon li nga leen doon defal daaw la doo leen ko defal hmm. dem nga sax ba da nga leen a jëlee si kaw wàcc leen ci suuf non c'est may may c'est may may qui est descendé parce que ummu jinmi ko yo yo tello ummu o yiɗa tellode après may wi fadumi jette responsable may mooy wàcce may mooy wàcce may lu muy wàcc waaw parce que sëriñ bi le mara Euh, loo gis si àdduna de am tolérance sur tolérance hmm? moi bi ma takkee may bi ma koy tóore takk yaa ko takki woon. maa ko takki woon. Hmm? waaw waaw dem naa ma defal ko lu nekk fii. Mhm. Hmm? defal naa may lu nekk si si dëkk bi. Mhm. waaw boobu bi ma takkee umu. Mhm. may dafa muñal umu. n'est-ce pas. dëgg la hmm? dëgg la dafa hmm? waaw bi moo ñëw may umu jël umu gis nga umu defal naa ko lu nekk dem nañu dellinde meele dafay ko lu nekk hmm? ah umu jëndil naa ko seen or jëndil naa ko jaar or jëndil lu nekk maa ngi leen di jox dépasse où est le problème. Kaaw. Ah? Kaaw yow de mun naani ne la parce que Kaaw temps yi nga nekkee fii. ak bi nga jigee fii dem sa réew tubaab yooyu bi nga ñëwee mm. am nga différence kaaw xàmmeetuma la mm. waaw mm. sa biir wax yaa ngi mooy wax dama làqi tubaab kaaw nañ dellu suñu cosaan nañ dellu suñu cosaan ñun ñëpp xam nañ fu ñu jigee ñun ñaar ñii toog mm-hmm. xam nañ fa ñu jigee mm-hmm. bu ñu fàtte loolu waaw te cosaan daa doon lu foot ci nit ki mm-hmm. waaw bañ nga ko ba bi ngay wax ba léegi yaa ngi may làqi tubaab léegi lan ngay bëgg sëriñ bi man nga wax man olof gi ñu xam olof gi ñu xam ñu wax ak moom dëgg la sax xañ na nàmp olof mais moom moom lañ moom lañ gën a miin fii nañ ci waxtaan waaw loolu laa bëgg nga defal ma ko waaw. waaw. kër gi daal moom mun naa ni jaxasoo na jaxasoo goo xamante ni man sax damaa mujj ëppi loxo. waaw te ku ne xam na ni kër gi niñ fi nekkee woon ay jamono léegi bu nga tukkee ba léegi mm. changé na. changé na changé na. kan mooy changé ko. changé na ay kalaama yi moom du dul jeex. Mm. ba si ab du Fall. doom ji ñëw na si moom ñëw na si man. Abdou Fall Abdou Fall. waaw mu nga bàyyi si kër gi. waaw mu ñëw na di ma kalaamee ak moom li mu nekkee si koñ bi jaarul ne si koñ bi topp ay moroomu doomam di raasoo ak yooyu si kilifa loolu jékkul. doomam mooy ñëw si yow. doomam moo ñëw si man kalaame si ma. mais Abdou Fall moo def loolu. Abdou Fall ko ca. Mhm. ah man daal ma lu mu doon waaye daal kër gi ca quinze na te kër gi bu amul tànki kanam warul am tànki ginnaaw ku ne nag dëgg la jàmbaar nga. jàmbaar nga bu baax. avant ngaa tukki nga doon def sama daara ji lu ne def nga ko si. lépp bu baaxee ginnaaw yàlla yow a tax. Hmm, voilà maa lay si sant di la si gërëm. waaw te kaa sa soxna yi nee nañ ma waxtu juróomi fonkatoo ko. ah del julli del julli. del may moo wax wax wala kii moo wax. may moo ni moo du loytoo bañ na ko ba sa sol yéeg sa moom daal da ngaa changé lépp nga changé changé nga colin julli bi dootoo julleeti. waaw léegi. sëriñ bi c'est ça dinaa xool nan laay changé les accoutrements loolu moo gën hmm? moo gën man bugguma tëralu la nakari mhm. dinaa xool naka laay ab les kii Abdou mhm. dinaa wax ak moom moo gën man dinaa ak Abdou Fall mu ko bàyyi lu muy def ndax am na yeneen yu ñëw di ma wax ay affaire Abdou Fall waaw kon dina xool ne laa koy régulation. Mhm. borom kër daal jàmm rek moo gën sa kër. waaye tamit ñoom wax leen ne leen. il faut ñu muñal bébé. parce que bébé xale la. waaw yow foog nga muñal leen ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp yaa leen boole yilif waaw borom kër bu muñalul yeneen soxnaam ñeneen ñi duñu muñalante loolu sa yow lay déparé jëm sa suuf. man muñal naa leen kon nañu muñal bébé. del yamale kon. xam nga man sëriñ bi min mi yi daa xaala man defal naa leen lu nekk kon bébé depuis France on se croisait dans son dans son dans son boîte

tey lii la ñuy waxati naan am na doomu aadama yoo xamante ni yàlla baax na am na ñoo xam daal moom am warul jigu leen ba ñu amee dañuy fàtte seen jabar yi lu leen doon muñal topp si li nga xamante ni moo leen dab nekk si dañoo réeree mbir mais yàlla baax na yàlla baax na alxuraan gi moom ku ko fàtte ku ne ci réer ngay ngay ngay mujj waaye yàlla baax yëpp yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm kay alhamdulilah ah, sant yàlla. alhamdulilah. léegi daal. Hmm. Euh, li ma doon waxtaan ak yow noonu. waaw waaw moom moom indi woon ah. waaw ma nga dimbali comme ordonnance bi ñëw affaire bi dafa situation bi dafa gën a dafa garaaw trop waaw trop yow de sama nit na dëgg yàlla soo amee sa soxla su ma ko amee maa ko war a faj parce que toi et é moi c'est é depuis longtemps avant les femmes uhum. avant les femmes c'est toi et moi franchement kon uhum. je suis je suis franchement heureux uhum. si li nga may wax je suis tellement heureux je suis tellement heureux. Euh, m'est nit mais il faut je te parler avant de te donner. Ah. il faut que wax la. wala bon le marabout m'a appelé Serigne sëriñ bi waaw wooy na ma bi mu woowee man sax sama soxla kër la ma doon wax pour nu ma war a nekkee sama kooku sama problème la sax waaw mais dafa dugal sa problème sëriñ bi dugal sama problème man sëriñ bi xanaa amul problème moom waxuma problème am de yow sa problème lay wax sama problème lay wax waaw parce que il m'a dit il a dit euh, ton Tofi. Wow, c'est, il a venu ce matin, c'est lui, Simon. Il a parlé euh, des affaires, pour des affaires de, de des affaires de quartier. Il a dit, toi, tu n'es pas réglé. Nous sommes tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es jaara mooy wax ko. moo sëriñ bi sëriñ bi day wooma day wax ma pour man day ñëw day wax la. Ah. Ah. waaw maanaam sama jaara moo ñëw sëriñ bi ne ko man damay taxawaal. waaw day wandeelu si koñ bi. ah damay wandeelu sëriñ bi wooy ma man. wax la day wax ma ko. man day woo day wax la sama xarit nga téemoon na mi. waaw xam naa pourtant c'est vrai parce que depuis petit <laughs> tu es non non non non je les non je n'ai pas d'accord parce que Jara, elle a dit que a dit que tu es croisé avec lui trois fois et j'ai entendu un jour lui et ton ami mon mon fils euh, à Kaja à mm. euh, euh, ils se parlé. il a dit mon père ataawi depuis ton père toi. koj bi koj bi ñu ngi wax yow sa tànk nee nañ bàyyiwuloo kenn nag il faut ngay lem bu mu roo ngay toog si. dëgg la dëgg la dëgg la. Hmm? parce que sa xarit la. day ñëw si man day wax. Hmm. sëriñ bi lii mu ma wax su nekkul dégg du ko wax parce que moom amul yooyu si yooyu. mais est-ce que xam naa dem si sëriñ bi. eh non non non non non c'est toi et moi quoi. waaw baax na léegi ñu doy jox la xaalis bi. kon daal yow balaa nga maa jox il faut nga xas ma ko non parce ko je dama bugg ngay kii soo ful ma ngay takka deuxième wala troisième yooyu ay yooyu. man sama doole mooy moomay takk ay deuxième ak ay troisième. Eh, dégg nga bàyyi caga yaa ngi dinaa ko bàyyi mais sëñ bi mu la wax noonu man bëggoon naa nga may ma rek ma dem wax ak moom. Eh, non non. Non, ne parlez pas avec le marabout. C'est parce que c'est moi qui de parler avec lui. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une somme de 100 000 francs. Quand je te donne une somme de 100 000 francs, euh, après, je, te donne 100 000. Parce que j'ai réservé. Ah, ça va Ça va Nous, ça va J'ai réservé ça. Et c'est ça. Bon, c'est ça. dama compte indi rek. non non problème ah. ah c'est alterne waaw ah. ah, alterne waaw non problème. mais nag gis nga Kaaw. meroon naa. sëñ bi dama ko noonu attaqué. bombardé ko. mais comme expliqué ma loolu bàyyi naa mu sedd. waaw moom <laughs> càgg yaakaar naa. waaw dinaa ko bi day def ko ay siyaas. nga xam nga booy dama leen testé rek man doxal ma ci kenn ku ne waxaat ñu yomb rek pour xool ba xam seen. non non jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf. Ah, ok jërëjëf c'est ça c'est ça ok. waaw léegi xam naa rek ba ngoon ndax damay dem na ci situation yooyu. Ah, rek la ko ba après ba xam ne. c'est bien c'est bien. pied eldele ma dadoro mboɗo anndi ƴamnaaka de joni caga weyi caga nge yaw ɗi fo banndi nga ko banndi ay <laughs> tay rek lay xam ne lu waay doon jaay tay lay la la tay rek lay lam ñàkk jom bay bëgg a dee eh eh kaay xamal la bëri ci ne na wéyu xam nga lan la bëgg sama xaalis nga teg ko fii konteel sama 100000 ak 100000 may na gaaw génneel na xaalis bi génn. gis nga xam lu gën a bon ci àdduna. mooy lan jéggu bu ñàkk jom. yow yaa gën a ñàkk jom ñëpp yow. man ngay waxal ma yow yow mii laay waxal yow xamoon nga ni bis bii dina ñëw. yow xamoon nga ko ma lay takkee jabar waxula ko waxal laaju ma la loolu ma ne laaju ma la loolu yow da ngaa sonn ah. xaalis bi laax na génn suñu takku dën na génn fii. dem leen ngeen laaj ko kaaw kay. Eh! man kay bu dee waa moom. Eh, yow Abdou Fall da nga génne xaalis wala doo génne na gaaw laa wax. na xaalis bi génn waaw doo ma gaañ ci xaalis dafa naax. ñàkk jom a de yow xamoon nga ne dinañ daje li Youssou Ndour naan xamoon nga ne dinañ daje. léegi ma ne ko envoyé. Eh, fii doo fi bougé centimètre di ko nen xaalis bi bu doon dañuy nen la tey di ko nen génne ko ñàkk jom bay bëgg a de jox la takk dënn ay jigéen nga wan na ko naan kaaw dañoo xuloo kaaw bàyyi naa ko kaaw nii kaaw ne. non da def ndànk nag quoi comme maa ngi lay jox sa moonin da ngay def. ndànk na génn non da ngay def ndànk et puis coow a bari. ma ne na bari dama lay libéré man yow moom dama lay libéré. dafa lu gaaw man xaalis bi lekkuma ko de a gëm yàlla. ma ne la gis nga moom dafa ña may tam daa ñàkk fay man maa koy lijjanti lijjanti sama bopp moom yàlla waaw yow yaa gëm yàlla yow mi ñu jox takk dënn ay jigéen nga war na ko ñàkk jom bay ba ga dee. te naa ngi noonu eh génneel yow na gaaw man mosumaa gis góor gu ñàkk jom ba mel ni kii. beneen te nañu. nag gaaw na ma ne na gaaw na deux cent yi mat. non sa xaw ma lan la cent mille laa lay jox de cent mille may na ci génn may. Abdou Fall di nga. waaw am sa cent mille may après naa ko libéré. ñàkk jom ñaw. waaleykum salaam. sëñ bi naka def. alhamdulilah naka mu. ça waaye yaa ngi si jàmm baax a baax. alhamdulilah. alhamdulilah kay. naka njaboot gi. sant rek a baax. non man indi moo fi. dégg waaw parce que dafa am lu ma dégg. baa jàmm la rek. non jàmm la rek. mais métti na ma trop. métti na ma trop ba ci kanamu yàlla. ndeysaan waaw bu ma sañoon nag. Hmm. loolu du ma ko dégg sa làmmiñ bi ko dégg nga. kon këccal sees day toog kon. non jarul jarul woon sax may. këccal rek ah doo taxul ni kilifa nga yooyu. yaa ngi ci jàmm baax mhm. sama doom wax. sa doom ju jigéen ji. waaw jaara waaw. waaw ndeysaan gone gu am yar gone gu teey gone gu dëkkoog lislaam macha allah moom dañ ñëw na kalaame fi fii ak yow si dig mu doon nax diggante waajur ak doomam waaw te hmm. Abdou Fall kilifa nga. kilifa de daam lu ko war si diggante mook doomam. Hmm. sa doom ji de lu ma wax fii bu dee yow yaa ko def. Hmm. Rafat luma ko dara dara dara dara oh. te kilifa gu ne war naa joom def loo xamanteni ni doomam sax day dem ba da koy yay oh. waaw te loolu jaarul da nga maam dénkoom nee na ma da ngay génn si kër gi oh. di raasaatu da nga maam say moroom doom ñoo xamanteni ay moroom moom lañu bañ la ci ñàqee keesaak di la si dépassé mm-hmm. waaw mu ñëw na fii nag joytuma ma mm-hmm. waaw te man dama doon yàlla dama dimbali ma doon kilifa boo xamanteni ni si gox bi mu ne mm-hmm. képp ku am lu la metti wala lu la naqari da ngay ñëw wax ma ko man ma def ci mën ma raayante biir ma ne nag def na loolu bu ma gisee kaaw dinaa ko ko wax mu wax ko mu àggee loo ko waaw. xam nga loolu yëfu seytaane la te yow nee nga kilifa nga ci biir kilifa googu nga ñëw ci laay ñëw ak yow. gis na kilifa du seytaane. kilifa du seytaane. déet waay non yi kaaw ñaata at la dem bàyyi ñu fi ma ak yow. yàgg na voilà léegi yow boo gisee dara loo xam ne neexu la doo ma woo man nga waxuma ko loo koy waxee kaaw. yaa kaaw benn ngeen te fa nga fa la la yàlla xiir. non da nga may déglu da nga may am na yoo xam ne bugguma ko am na yoo xam ne bugguma ko fii ku ci ne boo deful lii def nga laa fii ku boo xamul yaa ngi yëy kuñ yërnduwul yaa ngi waté dégg nga ku pentrul yaa ngi laso yow li nga def gëna pire li def lan la def li nga def mo gëna pire yow fi la kaw envoyé xaalisu douci da nga defar douci koku mom moom digënté diggante maag la wa légui man def sama diggante maag sama dom la sa dom mo ñew ci man kuma ma ci si rek lu ma si mën dina ko def wa d'accord wa légui yow xaalisu douci anam koku douci mom ginnaaw yalla mom bu yalla defé jam inshallah allah yalla la sa war dina ko def wa légui la moo tax kaaw la nga ne ko defar nga douci defar nako ko maçon be ñewul tay wa légui man loolu sama yoon man ba pare nga ñew ah dem ci kaw gonfale affaire bi lu na nga wax ko ko. déet gonfale wu ma rafet rek. sëñ bi sëñ bi waroo téye sa ñaari kilo di lijjanti sama kopp gis nga fii ku ci ne yaa ngi def li ngay def te kenn du ko wax te yow waa koñ bi yëpp yow façon akki bu ne akki nañ ma ko ci yow taxul ma wax ko kaaw yow lu ne def nga ko fi taxul ma wax ko kaaw léegi kaaw ñëw rek nga bëgg a ma wala nga gën maa foor garaat ci kaaw tax nga may fenal naan ma ay kaaw nii ka non yow da ngaa mën a fen yow sëñ mën a fen nga yow du ma ne sëñ bi yow booy da ngaa mën a fen dégg nga li ma bul duggati ci gaam yooyu yow pour attaquer si ma. non amul attaquer dama lay wax rek nag dégg nga tey ñëw naa def première première première chose bi nii nii lay demee mais ëllëg bu ma ñëwaatee dina demee nena nuru nii boobaa nag nga xam ne liy tooy si yow lay jógee waaw ginnaaw mag mu yarul nga boo ñëwee di nga xam ne maag yow ñoo yem waaw baax na li nga bëgg waaw bu soobee baax na kon di nga dégg xoolal faal ñuus na bu boobaa ba sëñ bi ñuus na baax na waaw sëñ bi baax na mag mu yaradiku baax na yàlla dina yaradiku ñëpp yow waaw baax na te kaaw dina baax na boobaa nag nga xam ne nag sëriñ bi moom nekkalul fi ñëpp la fi nekkal ñàkk yar ba bëgg a dee yow ku teggi ndawal nga teggi ndawal ba bëgg a dee man la may def ak la ma dul def na la ump sàllaa du na la ump maa kaaw maa moom démb la woon sama wóolale la dinga nga maam da ko moom may jox xaalis may jël di si faj samay soxla ak samay aajo yoon bi kenn néewu si dinaa yoon a mag mu ñàkk teggin nga di xam ne maa yow ñooyam maa ngi am chance pour ñu mën a jàkkaarloo ñu waxtaan sérieux parce que dadi mu ngi may wax ni man ak yow ñoo bokk génération xanaa bëggoo des fois ñuy toog di snap di tiktok et cetera et cetera moo la wax man nii maa ngi yow ay morom rek. bien sûr man ma sa morom maa la mag fuuf. ah waaw. Mère Thiam man danga ma war a respecté man sa tata laa ma war a cër gis nga daj man maa koy béggal kon danga ma war a ci kër ci kër gi ok te loolu laa bëgg su ma nee nekk yow xamoo sa date de pardon xamoo sa date de mort xamoo sa date yow ok parce que boo naan sama papa yow yaa koy béggal tuuti nga ci sama papa bu dee limon fekk na ñu nar ko bam dess tot kon du maag yaw sikku maag yaw lu may xañtoog yow ak lu may sinabante yaw mais ma fi est ce que tamit doo nangu rek nangu rek wala bañ fi baña fi am ndax man duma sam morom <laughs> eh. manaan ma maa fi yow yalaa daw da nga sa soxla nga dem sa yoon te mo neex du neex ma ak yow. dama toog euh, sama xel nekk ci pizza ma bëggoon après nga jëndal ma dadi nag mu si biir soo ñëw nga fëgg naa nga day nga après mu ne bi ko gàll. eh eh dëppaatal yow pizza man bu day man yow pour dërëx. tey sa xaalis. médecin yow da nga lan la lu xew lantinor teyel man duma sam morom bo yoni bo beugé ko yoni pizza sam papa da lay wutali bon mou lay demal say service teyel sa 2000 médecin yow da nga ma demal yow ko lay demal yalla na dé man sa jabo papa la nga ma demal ci lima bëgg yow sama jabo papa nga médecin yow ku rew nga da nga rew yow ya ma gëna rew sedemin aller retour teyel sa 2000 yow atay ku yabaate nga yow ya ma gëna a nga Non. Non. qu'est-ce que c'est? a. non, non, non, non, non, non, non, sama xel non, ci pizza. non, Non. Non. non, Non, non, non, non, non. Non, non, en fait non. Non, non, non. non non non. non non non Non, non, non. ne pleurez pas ne pleurez pas non non non. Non, non, hein? euh, ne pleurez pas toi aussi. Ah, non, Anne. an ka dendo hakkile ou bien an ka ko ou bien an ka jijo mayde walla mi kanga a ah, ka kangal eh. a joni ah, eh. lawol fan darima lawol fan darima nawam fan eh, pourquoi an o oh, ko gogo ma hay so wonno ko cukalel ko gogo ma bu fekke tenen ni sag boy la moom say tantala ah oui c'est ta tanta. on a tantam de. ah pourquoi on nous lima ana ah, ah, asali asali yani pourquoi. Ah, yaxata parce que min mi wona eh, eh, giji eh, parce que kankañum o woo lawol ngol o anda wuro ngo. bien sûr. xamul dëkk bi. bu xamul dëkk bi nga wutali ko mbindaan bu koy demal service am mi yaxaani. forcé. Forcément, ah, forcément à Qu'est-ce que tu veux, euh, Pépé Pizza. Pizza. Hein? Donne-moi l'argent. Nda. Hey, ça gagné. Donne-moi galam. Parce que min di acha, ida hala, mi hala, Johnny mi ma, Johnny ma. Hey, kaliso. Hey, parallèle l'argent. Plein l'argent et partir pour céder le... Euh, combien tu vaux hein? Tu vaux quoi Petit ça. Petit ça, oui.